jàngeen jëf suñuy mbokk internet Benno Bokk Yaakaar tabb na ay njiitam ci élection yi ñu jëm fii ci Dakar monsieur Amadou Ba Golf Sud monsieur Lat Diop Nioro monsieur Momar Ba Mbacké monsieur Gallo Ba Médina monsieur Cheikh Ba Mbour Cheikh Issa Sall bu Mbour Saliou Samb Malicounda Maguette Sène Diourbel monsieur Dame Diop Saint-Louis monsieur Mansour Faye Kaolack madame Mariama masar Wakam Victor Sadio Diouf Dakar Plateau monsieur Alioune Ndoye Patte d'Oie Banda Diop Linguère Aly Ngouille Ndiaye Yoff Diouf Sarr et enfin Sangalkam monsieur Omar Gueye restez en alerte te ngeen topp ñu ci suñu ay réseaux sociaux ngir xibaar yu wérte te